a bëgg nañu ñëpp taala ziar nañ ñëpp ñaanal leen ñëpp jàmm di ziar ñëpp tey la samedi tey la 27 juillet 2019 Fallou Ndiaye woote fi arène nationale géew baa nga ne Gora Sock Tyson 2 doomu dàngu Farouz Fara Ngeer ki nga xam ne nii moo di ah xaleb Cambérène bi bébé bismi ak Cheikh Super Jamono waaye li neexul ci journée bi mooy wala li métti amateur mooy jokkeel ak Mama Lamine bi ñu doon xaar du ñu bëre ndax Mama Lamine wala boog jokkeel dernier moment nee nañ dafa wéradi te nag ku wér di mënta bëre te xam naa amateur yi tey bëggoon nañoo gis Mama Lamine bëggoon nañoo gis Jokkel waaye taxul journée bu yàqu ndax ak Fallou Ndiaye ah mooy loolu de waaye drapeau Moussa Diaw taala mu ngi ci biir taala bu la neexee nga tourné ca porte bële. xaaral ma laajte ba xam lu xew mais Franc Franc maa ngi lay bëgg Franc. Kéba fi dugg yéen a man sama néew ci de yéen yéen a leen dugal de mbër fee lay dugge daa ni nga ñëwee kii na de dafa xaw a sedd de wala. non booy ñu la rek la ñu dugg quoi ñu war a ànd tuus après ñu tuus rek waaw ah, après. ñu di waaj a tuus waaw incha allah. kon ci kanam Franc. amul problème lay wax ngeer. du ko ñaanal jàmm rek arbitre lépp mu soufflé de waaw. Ah. léegi warul soufflé. ma daan ko dem ñibbi. incha allah ba ci kanam. incha allah Fallou ma am nga ñu ngi am jàmm baax a journée bi tey. dañ dañ dem dañ moment ñu dégg ci benn euh, combat boo xam ne bokkatu ci muy lu ko waral ak est-ce que loolu am na. waaw loolu am na ndax euh, Jokal ñun yaa deux mois ci ginnaaw tey ñu ngi dégg ñu du bëre. Ah. kon yaakaar daa firndeel li mu waxoon rek waaye moom yaakaar naa ñun ñëpp ay góor lañ ñun suñu alal jox ko su dee mën na koo lekk di xaar déwén amul problème ndax. maanaam du bëre ci deux mois ci ginnaaw mu ne du bëre te lekk avance loolu est-ce que yoon la. non loolu yàgg na ko wax du bëre comme moom su fekkee dafa joxe médical CNG lay bett ak ay manager waaye ñun duñu bett ndax yaakaar naa suñ programme yi ñu koy déroulé lépp ñu ngi doon dudee dina bëre wala du bëre comme bu nee du bëre rek moom la neex te suwaam la du du man jàpp ma ne blessure la yow léegi loolu ci maanaam après lu ciy topp non dara mënu cee topp ndax yaakaar naa boo xoolee tey CNG bi fi nekk bon jàpp ma ne <laughs> li ñu war def yëpp ñu ngi koy def ba mbër day def lu ko neex te daa du ko ci fekk man loolu laa gis promoteur daal kenn protégé leen lu leen neex la mbër yi def lu leen neex la leen mbër yi wax mais yaakaar naa lool moom incha allah bientôt dina jeex ci kanam. mu mel ni tamit ñàkk bokk boobu ñàkk ñàkk euh, maanaam bëre boobu mu ñàkk bëre moog Mama Lamine daa mel ni dina am lu mu wàññi tey ci journée bi da daa mel ni. waaw non jàpp ñu ne tey boo xoolee Tyson 2 Gorosok ñoo indi Franguer maam ak euh, Fouls doomu yaakaar naa bu ñu xoolee ne ci bunt bi ak li nga xam ne moo ci salle bi jàpp nañ ne man naa ba ñaan di dara ci suñu programme ak suñu événement. mais entrée woog moom daal dara du ko ci fekk non entre ñu nag man dara mënu ko jafe fekk ndax CNG la jëbal kayit te comme CNG mooy suñu kilifa dañ ko ba làmb yem fi wala ñu dem ba làmb doxatul wala mbër chaque chaque année chaque semaine ñu changé ñu combat yàqu yaakaar naa na jël ay matuwaayam ci li mbëri xewal ndax liñ xewal mooy ku ci yëkku rek da ne doo bëre andi médical yaakaar naa médical na trop buñ nee nag mu yàq 10 combat ñu toog weekend yoo xam ne nii benn mbër bëriwul dinañ jël seen seen naa ay leket mais mbër mbër ci loolu maa ngi nii rek ba am nga jàmm am naa jàmm bu baax ana waa ndaayaan ña nga fa tey noo ñëwee ni ma daan ñëwee rek amul problème ni ma daan woon ñëwee rek waaw ni ma waa ndaayaan di yab rek tey xam nga rek yàlla may nu si victoire bu sedd guy day gaaw wala yéex no lu mu combat bi bu laa mën na gaaw mën na yéex waaw préparé nañu lépp foo jóge nii ndaayaan nga jóge wala Pikine non Pikine laa solo waaw looy non li ma ko daan wax rek yaa ma doon laaj yaa ma doon laaj bu heure bi suuf la dëggalal sa bopp loolu rek laay wax xamatuma den waa amul leneen lu may laaj waaw. Uh-huh. taala ci bu lay neex neex taala Njaay taala ci bu lay neex papa Njaay puusal fi yow dinaa la mbéj de ah ci bu lay neex taala Njaay loo ci mën a dégg daal kii mooy mantaru mooy bras bi moo topp ci Eumeu Sène rëkk nag tey mooy ubbi bés bi di samedi suba ñu continuer Eumeu Sène bëgg naa leen waa ndaayay taala ay bool a ngi nii fourneau taala xanaa lii taala xorom a ngi nii de lii de xanaa safal bés lañ ko tuddee mu ngay naan de xorom da day sa daan safal bés sotti ndox sa waaye daa mel ni non stress mu ngi toog naaj ci otom naaj ma non stressant mu mel ni mais mais mais mais tey nga na mais tey nga nar a ubbi tey suba ëmb ñëw loolu est ce que du dis ci yéen. yàlla may nu ndam lu seede guy rek ñun ñaa ñun ñëpp ku ci mel ni ngeer ñëpp yàlla may nu ndam lu guy waaw. noo lay demee waaw. am na solo. loo ngi ne borom marché ci leen Balla Diop Balla Diop ak Modou Roubé gaa yaa ngi nii mais Balla Balla bëgg naa leen. ñu ngi lay ziar Babacar. ba am ngeen jàmm. waaw ñu ngi sant Serigne Touba baax a baax. ngeen di yëngatu ci lamb di dooleel lamb de lamb sans amateur du dem lamb a xam il faut amateur yi ñëw di dooleel lamb te ñun loolu moo ñu bàyyi ci lamb dooleel lamb xamee ñu xamee ñu lamb ji ak lamb jaay fu lamb amee ñu dagg bi bu ñu fàllu tuddee woon drapeau bi dañuy dajaloo dagg suñuy ticket yéeg ci kaw toog ñun dañuy dund lamb rek waaw merci. <laughs> Cheikh Bass a ngi taala waa Cheikh moom moom cey Cheikh Bass moo dàq commentaire vidéo ci àddina bi nag waa waa RFI sax day commentaire seeni vidéo ak waa canal non Cheikh Bass li nga nekk doy na waar. Bakar maa ngi ziar. maa ngi la koy delloo kay. maa ngi ziar ñëpp di leen bëgg baax di ñaanal gars yi gars yi bu jàmm gars yi ma àndal di ziar Talla Ndiaye sa sa sa sa ko war a baat di ziar Lamine sa. ana Ibrahima Diouf borom marché Tilène. ah. Fallou ngi nii Fallou maa ngi lay bëggee. ñu ngi lay siyaare Babacar Baye. mais daa mel ni maanaam dañ leen a tuddee li ngeen bëgg rek muy làmb. waaw tey moom danoo delloo buum sa boy boy ga rek waaw yaa ma gën a xam tey làmb lan dund Fallou Ndiaye suñu doomu nday tuddee drapeau ñëpp teew jeune amateur ñëpp a ngi si ginnaaw waaw président ngi si ginnaaw jaajëf. moom man Ibra Ibra ci loo ne. sant nañu bu baax Babacar. mais tey dafa mel ni dañ leen a dugal ci li ngeen bëgg maanaam daal ku wut fu fanaan ak ku bëgg ku ko wet li daa mel ni seen digganteeg làmb noon la demee. waa loolu mun na nekk parce que tey gis nga ko tey seen amateur gi yëpp a ngi nii président man mi nga xam ne maay vice président bi ak trésorier yeeg ñëpp ñu ngi nii ñëw waaw góorandoo mu ngi ñëw mu ngi si bu daa am ku muy jël. promoteur tey lu ko nekk loo promoteur. Ah, coow dina jib moom ndax yaa jibal coow. non Modou Faye. jibal coow de. <laughs> te gisoon naa nekk promoteur tey ma Baba Diaw promoteur ànd ak Modou ma gis Pape Ndoye taxaw Jackson taxaw Baba Diaw promoteur la léegi. waaw loolu dafa leer xam na tam ñëbatul làmb moo yaatu ñuy siyaar waa jeune amateur yëpp sant Fallou Ndiaye mi ñu tuddee drapeau bi làmb dafa yaatu ku nekk moo ci xaj parce que koo fi gis ku ne rek fii sa xel mu ngi ci nekk pour tëgg làmb tëgg làmb nekkul difficile. xëy na ñoo ko difficile mais difficile wul parce que staff bi moo yaatu képp ku nekk jeune amateur bokk na si Thiam Production parce que gars yi dañuy doole duñu xelal. structure nu mu tudd nga ne. Thiam Production la tudd. Thiam Production. kon dafa yaatu kon ñëpp a ngi si. ku ñaata journée ngeen fas yéene tëgg. bu si àndee rek dañuy xool rek bëgg nañ quatre wala cinq mais lépp mu ñuy ànd suñu ko borom yéen médias itam dénk nañ leen suñu bopp te xam xamay xale yi liggéey rek lañ loolu dara amul solo. loo ko wax yow. waaw Fallou Ndiaye xam nga lii dafa rafet nga xool ay amateur surtout ay jeune amateur yow nga doon jeune promoteur tëgg làmb ne xaaral ma tuddee ko jeune amateur loolu dafa dooleel làmb rek parce que ñun suñu. Saal ñaari mbër yi ana Bécaye Mbaye Bécaye euh, bu Mansour Mbaye moom moo féetee Mbaye Tapha Tine mooy mu ngembul ñuul li Mbaye bu Tapha mu yor ngemb barke Cheikh Mouhamad Fadal Aïdara danaa lay wax lii waaw dama doon neex rek te ay may jàll yëpp eh, mais lam lam grave tamit la woon ay Fallou Ndiaye moo def ah, te lam mooy dox euh, Fallou Ndiaye rek Mor Mbaye ñu ko xaar waaw lam am sunu dañ leen ñaan yàlla bu continuer parce que loolu mooy permettre économie làmb développé ok dañ leen ñaan ñu dugal bismillahi rahmani rahim jëlee ci alhamdulilahi rabbil alamin que le meilleur gagne que le meilleur gagne waaw mais presque xanaa yaa ngi waaj dara pour déwén ñaan yàlla fekkee ba pare yàlla nañ fekkee waaye nga tamit ci loo ne mais yow it gars yi namu lañ presque waaj déwén waaw kan mooy Tafa yow. waaw. yaa doon bëre tey. waaw doomu Jokkul. bi mooy si ñaata combat. premier combat. première victoire. waaw. mel ni neex na de. neex na kañ bàyyi. ba léegi nga nekk. lébu gi. kon tënkee nga jóge alam lébu. tënkee naa jóge kañ. ànda ànda ñoom Youssou Ndour. ay Idi. ñoom ñëpp. billaahi. sa waay day bëre moom. saa moom day bëre. su ma seex la. yow ya yéen ñaar ku dàq bëre. no non kenn daaxul bëre kenn daaxul bëre non kenn daaxul bëre. yow bëreegul naa ren wala bëreegul. ñëw déwén dinaa ñëw police wa ngi waaw gars xam nañ ko de oui déwén incha allah ñëw. yow seen lan maa seen yaay mbar mu jigéen ñi. moo ah, tëngeej ma bëre woon Demba Diop a ngi Talla Ndiaye. xaram kata bombee ngi nii. maa la ko nga dëgg waaw yaa yor xale waaw so maa ngi seen yaay. yaa leen jiw. waaw xam nga loolu première la si Sénégal yaay jaa ngi nii seex yaa ngi nii taal olof a ko wax de boo juddoo cim tàgg boo naawul jaaxal say mbokk. ma ne ko la ñaawul maamam la nuróol. billaay wallaay ceeb bi ñaawul maamam la nuróol. doo <laughs> ngi sant fukki penc ñaar yëpp. di sant Sénégal. rawatina di sant nijaayam ñii yëpp. di leen sant ni gis nañ ko encadré di sant yaayam. pay li muy daj ci njaboot yàlla na ka yàlla fay. ba ko pay njéema yaayi soog. yàlla na ko yàlla dëgëral bàyyi ko fi muy keroog mbaar mooy sama taa papa. kooku du du du goro si famille bi. papaam du ko war a si famille bi yàlla na ko yàlla fay ay ñëpp. dama bëgg na ngeen jàpp si bu sama waay. combat Modou Yacine ngeen jàkkaar lool Modou Yacine ak Siteu bu Malika Siteu leen won ginnaaw arbitre soufflé na ñu nga ca de ñoo nga ca mu ngoo ngay daw ah waaja daan naaj de yaakaar naa médecin ko ne woon a de ah ñu dem xooli loolu nañ troisième combat tampon bu Tay Shinger lañ jàkkaar lool Tay Shinger Zal Gounass Tay Shinger sax lañ def waaye entraîneur bi naan tampon la tudd Tay Shinger moog Raskas bu songaan kay Raskas ak gàtt tampon njool li xanaa mooy Talla ak Babacar ñu xool koy daan. Babacar man maay daan. ah Dior Ngare ma daw jël la Talla nga sol ma. góor it ñëw na ñetti butéelam xanaa li ay tegtal la Franc ngay génn Franc moom génn góor a nga fay des sotte ko ay butéelam cey lam na ko da daan da koy daan bañ na ko wala de parce que eh, daanu nga a ah, way daanu nga taay si nga daan loola

noppi woon Aliou ak général général Kairé à gauche Aliou Fat Fat à droite Aliou Fat Fat nag moom mu takk ci téere bëri na yaram wi ca bopp jàppante nañ de taala dawal na ko mu bañ rëb mu ngi koy dóor eh, xeex nañu laa ilaaha illallaah taala bu ñaaree loolu moom loolu de neex na amateur yi ak supporter yi ñoo xondoon nañu. Oh, laa ilaaha illallaah waaye yow xale yi mën nañoo bëree taala waa taala xool boobu bëree yee xale yi mën nañoo bëree. doyul waar. nee naa ko maa la mën. wóor na yàlla maa la mën damaa liggéey. dama kaa deuxième biir. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. bi mooy trois victoire. damaa juumoon. ñu daan ma. wóor na yàlla. mais xam nga ne jël bi ko daan rëy na. kii maa ma mën. maa ma mën dama doon compétir. kii sama entraîneur la amuñu dañu si man barki Alxuraanu Karim damaa sonn barki borom daaru wóor na Rasulullaay yow ma fayam. billaay wallaay. bis ñu wan ginnaaw. Cheikh supper jamono lañu jàkkaar lool Cheikh Super jamono Bébé Bismi Bébé Bismi bi muy bëre fii bi mu fi mujj daa daan waaw waaw ñoom ñaar ñëpp ku ci ci ndam nga toog Bébé Bismi sew te njool wane ginnaaw ngemb lu vert tojtal koog lu weex Cheikh am nga ñaar avertissement tey nga dëggal sa bopp bëre Cheikh dëggalal sa bopp bëre waay. fi mu nekk nag condition physique day daal di commencer feeñ waaw waaw condition physique mënut a bañ a feeñ fii. aywa jeex na taala xoolal lii yow borom Leewtoo eh Cheikh Cissé Ngongu promoteur asalem bi waaye tonton Diaw waay tonton Diaw a ngi nii est-ce que xam nga ne tonton Diaw samay xaay samay copain la àndal Diaw ADN asalem. waaw mais maa ngi lay maa ngi lay yaa ngi am jàmm. Fass jóg Ndakaaru yëpp jóg looy wax. mais parce que ñëpp samay mbokk lañu man Diaw Dakar laa. jaww HLM laa jaww Fass laa jaww Point E laa jaww fépp laa waaw. ma gis Thialis tam sa ginnaaw sa diggante ak Thialis. mais Thialis sama doomu nday la Thialis moom ku ko xam-xam ni sama doomu nday la waaw lu muy def dama koy yëg lu may def def koy yëg lu ñuy def dañu ànd def ko waaw. mu mel ni daal tey kon kontaan nga. mais kontaan laa def parce que yéen gis naa leen sama wet. waaw du mën a ñàkk yaay yaay suñu patron nag. mais xam naa loolu moo tax nag. yéen da neex a jiite parce que da ngeen liggéey te du ngeen bàyyi na fan yu gudd amiin yaa rabbi maa ngi Cheikh Cissé ñun ñëpp ñu waaw ñi ngi sant yàlla bu nga suñu grand di ko yàlla bis bi yàlla na ko jik yàlla na ko jik ci barke alquran karim te yàlla na am leen la gën a rawal ci kanam ci kàtt dañ ñu ngi ñëw ci kanam waaw kii mooy suñu grand ndax may jaw mi day suñu càmmiñ di suñu xarit bëgg HLM HLM bëgg ko mu bëgg ay famille bëgg ñëpp kon drapeau bi yal nay junni drapeau ci barke Seydina Mohamed. DG maa ngi lay ziar. ñu ngi lay am nga jàmm. waaw alhamdulilah. tey nga ànd sa sa kilifa ma naan sa mag. waaw donte yaay kilifaam ci liggéey waaye sa mag la ci li ñuy xam. nga andi ko tey loo yëg. waaw am kontaan rek. et xam ne bés bi suñu bés ñu ñëpp. bésu làmb la parce que suñu mbokk promoteur moom moo ñu ko tuddee ñu def lu ñuy ñëw honoré ko donc je pense que na ñun ci làmb lañ bokk waaw. kon daal dese tey daa mel ni da ngaa làmb. waaw ñun lañ bokk ñu mënuñu kay mënuñoo génne ci làmb. dëgg la waaw kay mënuñoo génne ci làmb ci làmb lañ bokk waaw. daal la délégation baa ngoog tonton Diaw ngi noonu taxaw Diaw a ngi noonu taxaw ànd ak Pape Thialis Faye ànd ak waa Asalem waa Fass Gueule Tapée Colobane Médina Gibraltar kii mooy Diaw Leewtoo. Babacar Birame waaw. monsieur Diaw tey nu mu def doy na waar. waa ñetti Abdou la sol. mais la ma ci jaaxal. calis la mu mayee ma jaaxal Babacar xoolal Talla Ndiaye xoolal feer ya. ndaysaan Birame a ngi noonu. <laughs> waa Leewtoo daal neexunu deret. ah ADN. waa ADN ak Diaw. waa drapeau Nguer ak Franc. Émile François Gomis Ngeer bu sap combat bu nar doy waar ba waa Sambay ana waa états na daal ana waa New York gaa ngi leen nuyu di leen bëgg fan yi gis naa la ci vol bi Sam <laughs> waa dalu ji rek dalu ji tuuti ah, waaw dama yóbbaale di sant yàlla di rafetlu drapeau bi nag jaw moom matu bëgg naa la maa ngi fii tey de sa deuxième nga ñëw lamb waaw gis nga ko de ba tey ba jaw moo xew la waaw jaral na la ñu nekk waaw macha allah <laughs> teewaay bi ah ñëw rek def délégation rek borom ba ah, ah. Adja Dior yow looy wax. waaw xanaa di rafetlu bés bi rek ñëw ñëw teewee drapeau Abdourahmane Diaw ah, euh, kii ñu bëgg mu nekk maire HLM euh, maa la wax lii ñu ñëw nag Pape Thialis Faye ak waa Leewtoo maa Taala ma cof ma cof Franc. ngeer kan mooy daan ku jël drapeau tey nga ànd ak Moussa Diaw ngeen andi ko ngeen ko ndee laay laaj. Adja Ndella ceeb. borom ceeb jërëjëf nga waa Léopold Ndiaye ba am na jàmm. tey li nga def ci lu nekk. waaw jëm nag sama maa ngi leen di delloo ziar. tey de bu la bit nga indi tey. waa jëm rek sama yaram neexul. looy wax mu sa Diaw. xanaa di kontaan ci moom rek. nekk suñu patron rek te seetaanuñu ànd suñu patron bu yàgg booba ba tey te seetaanuñu rek. mooy doomu ndeyu calis nag bu la calis réeree rek boo ko gisee yaa ngi gis nga calis looy wax tey ci drapeau sa Diaw. waaw mais comme bis bis la bis bis bu màgg la monsieur Diaw nekk koo xam ne dafa bokk si ñun bokk si Leewtoo bokk si Thialis te itam nekk koo xam ne ni tamit euh, suñu kilifa la te kilifa kilifa boo xam ne la bu ñuy sóoraale si lépp lu muy def kon bisam rafet na jaaru nañu taxawu ko taxaw bi war comme suñu bis lañ ko def tey macha allah yàlla si yàlla def euh, barke ak aussi liñ si liñ si mbébét liñ si yaakaar si lu gën ak promoteur bi ko ko tuddee li si yaakaar tamit moo am ko si si dara jël seen naam Mouhamed. kontaan ci yow. non maa maa rosi yéen Babacar yow kenn du. arbitre soufflé na drapeau Abdourahmane Diaw borom aareen borom asalem ñoo na ci stade bi toog ànd ak cay sëg waa Leewtoo yëpp laa ilaaha illallah Franc ngeen moo leen woon ginnaaw moom ngeer ngeen jàkkaar lool Franc ngay dox ca koom Franc ngeer ñëpp nag favori yi dañ koo jox Franc waaye la de lu nekk mën am xeex nañu xeex nañu eh, ngeer daw na yoor wa waaye day daanu da koy wër da koy bu di dóor ci suuf ah way duñu benn Talla Ndiaye du benn bara doole Talla Ndiaye Talla Franc naa la kii ku jar a bàyyi xel la ci la Babacar waxoon nga ko de Babacar eh, jël na drapeau Abdourahmane Diaw loo ma wax ci làmb gëm naa ko bàyyil xel li ma lay wax Fara ku ne la loo ma wax ci làmb gëm naa ko Fara dafa mën a bëre Babacar nag maa xamal làmb Fara nañ ko bàyyi xel ah bu baax a baax a baax Fara daa jar a bàyyi xel taala am na doole mën naa bëre drapeau Abdourahmane Diaw la jël tey ah, ay jaajëf waay eh, xool supporter ya xoolal ma waa kër Fara yi e eh, way ndaw waaw waaw wanto ndaysaan xool tàngoog Farouz Sitor ak Malick nga ma ngay wax ak ñoom nappante balaa ñoo bëre nappante taala wàññeente sa góoru morom bu lay napp nooy def. <laughs> Babacar. mos nañ laa napp. ku ma napp ma dóor la are. ah yow ku la bu ma la jàppee. ma dóor la are nga wàcc. doo mu yeggale. déedéet. taala naqari deret wóorut te da ngaa mel ni ku naqari deret. wàcce rek. da ngaa gaaw a xeex de. wàcce rek Babacar. est-ce que mosoo am defet ah gaw ko de mosuma am defet ah ma ko wóorul de ñun ndongal daara lañ Babacar ñun duñu am defet ci dóor la dëkk ñuy def ah des man ni ndongal daara laa bañ nekkee xale lañ commencé xeex yàgg nañ maa duma yàgg naa duma waat man nag dama naan duma waatee ah am defet de kenn mosuma def daal ay ay ay ay ay ay doomu dangu daan na Farouz ah Talla tët tët tët loolu daf maa ko jëli bu dangu daan ko jëli bu rëy doole waay e dangu e dangu kaay kaay waa mais dangu dangu dangu loo def nii. li mooy cause magique. cause. dóor mu daanu bi du dara. dañ ko liggéey. mais tey manu ci dara. manu ci dara. li yàlla la. secret bi fi mu nekk du ma ko wax damay bàyyi bay jeexal soo ko wax. léegi foo jëm. tey la sama vingtième combat. ñaata victoire. ok quatre défaites. ku des kan moo des. du ma lim kenn mais na ñëw ñu bëre. waaw tuddal ay tur. xoolal victoire bi avant tout da am ku ma koy may. suma grand Aziz Malick. maam ngañ fay suma xarit la woon suñu borom moo ko moom yaa ajmal yéen laa may. mais tënkee seen yaram daa tàng de. Oh, ah Ibrahima Ngom. ah non ma ñëw xaaral kaay. non ma ko def. xam nga loolu. lu la góor laaj. lamb ku nekk ak lamb. père maa ngi jégalu. am na lu Tyson 2 di diri ay Senghor di war ak moom kéew bi Gora Socket am na lu mu diri ba yegg si joxe ko laa ilaha illallah Gora ak Tyson 2 ak Tyson 2 Gora am na lu mu suul foofu jogaat am na luñ koy jox benn fas bu weex la mu ngi koy yóbbu jëm ca Tyson waaw benn ñaar ñett moom mu yor bu ruus tàpp na fa mu joggi woon moom Senghor gu ruus la yor moom Tyson 2 cey taala tey nag xanaa est-ce que xam nga ne poulet Modou Lo ak poulet ak Ama nekk nii taxaw ci géew bi. dana loolu dana doy waar de Babacar. lu doy waar laa lay wax. te suba la combat di Ama Sène. foo gis Tyson foo gis Ama Sène gis fa Tyson 2. foo foo foo foo foo gis. Goro Sock gisoo Goro Sock. ah ñamali kon. <laughs> ah ñamali. avant première. tey la ñamali. taala booy togg da ngay ñam. tey la lawal la wala deuxième la. kon togg gi commencé nañ ko. lawal la wala deuxième la baba. ah bii mooy bii mooy bii mooy lawal bi. kon deuxième bi kañ la Babacar. deuxième ba suba lay doon ca ca ca Léopold Senghor. doy na waar de. góor a soog yàgg tey ma defe ne am na ba pare. deuxième bi. waaw kon deuxième am na kon de xanaa bii mooy deuxième. ah lawal moo daan jiitu a de. waaw wax nga dëgg Franc la hee waaye Talla fàttali nga ma. suba la troisième bi Babacar da ay suba la troisième bi deuxième baa ngi. bàyyi ci ba Franc la. Ah, ay wax nga dëgg François moo daan ngeen bu tay si nga diggante góor a sob ak tay seen bu tay si nga noonu na ak su parcelle bi. parcelle ama parcelle amaguna un. mooy premier bi Franc ko naan. góor a soog mooy ndax dina naan deuxième bi wala Tyson 2 day bañ ñu exe ko. loolu dinañ ci xam dara léegi. bu góor a soog bu Tyson 2 bañee dañuy def 1-1 tey suba ñu def tiro bi. Ah, jàngal nga ma làmb daal. tiro bi ci làmb lay am suba bu dee bu dee Tyson 2 daa gagné bu fekkee ne nag góor a soog daa gagné moom ah day daal di doy waar waaye nañ yónni yàgg. ak nga ma jàngal làmb Babacar. drapeau jeune amateur yi la. li may gis moo pare laa la koy wax li tax jàngal ma làmb. ah waa ah, xam naa daal doy na waar de. waaw ah, ko waxoon de. làmb la de. dag maa jàngal làmb Babacar. lamb de. Ah, ñetti combat la. Franc Nguer Franc daan na Nguer deuxième baa ngi nii Gora Sock Tyson 2 troisième ba nag suba mu ngay sànni Léopold Senghor Modou Lo lay doon ak Ama Sène kon dama bu ko kenn jaawalee arbitre ba soufflé na mooy Sitor Ndour Gora Sock lali na Tyson 2 la doon ko moo féete gauche Tyson 2 droite. góor a gëdd na ko góor a daw na jël ko Tyson 2 pusul na ko maa doo def ka dàppi góor a moytul góor a moytul Tyson 2 day bëre dina ko daan eh góor a sof fi nga dugg baaxul. Tyson 2 ko maa doo def ka dàppi góor a moytul. daanu na Tyson 2 daan na ko Talla Ndiaye wax la ko dafa mën a bëre Tyson 2 daanu góor a axa kay looloo xeeñ de mbaa woo hey lu lu arbitre bi def bërewaat wala lan bërewaat ah coowa waaw waaw nee na bërewaat kon jël a sëb na def nang day seen deedu nga xene lu leer lañu la lay wax dafa mën a bëre góor a sëb est-ce que ñu ngi bëre la kii benn la ñu ngay lewaatoowaat mu nga tooba tooñ na ko góos daw na jëli ko Tyson daw na jëli ko góor koy wite góor a daanu góor a mbaa defoo kat appi daanu koy wite daanu laa ilaaha illallah ee eh, Talla Ndiaye mbër yi dañu benn Tyson daa mën daa mën a bëre lu leer laa lay wax mbëru tournoi la daw na jëliwaat ko góor a jëli na Tyson jëli na ko dana ko daan daan na ko trois appuis wala lan dara amagul de dara amagul hee góor a soog am na tay client Tyson jëli ngi nii góor a ngi nii Talla Ndiaye eh, hee boo ma seen sa mbër maa ngi mbaram Lamine maa ngi mbaram Issa moo ma seen daw na jëli mu bañ da koy daan daan na ko ah oui xale daan ba mu jaaxaan góor a daan na ko jëli bu rëy kaay Talla Ndiaye. dafa daanu ba tax suuf. dafa daanu ba tax suuf. kaay kaay kaay suuf. daan na ko ñaari yoon daan na ko ñaari yoon. loolu. man xayma sama tànk suuf si kaw. mais man su ma karapee. na ko seen jee jom doon ndam man buñu ma loolu. na man karaaf bi moom xam naa li may bëri ko mujj a daane nag da nga ko jëli rek ànd ak moom dóor ci suuf buñu bëri bëri metti mënu ma ko fa ñu bëri bëri metti la su dee bëre mu jël sama bakkat mais lu ma gis damay dem waxan naa la koy maintes fois ma ne ko foo tax na la fekk ndax xam naa ni kii champion bi doon benn booy su ko daan moom dalee bëre ba léegi daan na booy yëpp alte na ko daan a guy gi ñu ay champion lañ mu ma ne man xaama deew moom ndax ma am ndam su ma deewloon bu ma am ndam waaw léegi léegi wuyu ma léegi daan na nga daan waaw ana Modou Lo suba moog Ama Sène waaw suñu grand frère dañuy xaar mu am dam incha allah léegi man maay déglu gars yi gaa yan gaa yëpp rek lii moo xewoon tey arène nationale Franc daan na ngeer benn jël jël bu leer nañ kenn werante wu ko Bébé Bismi gañe na ki nga xam ne mooy Cheikh Super Jamono par avertissement doomu dangu daan na jël bu leer farouus ken werante wu ko waaye diggante góor a sabak Tyson 2 nag bi wala boog action bi njëkk am arbitre àtte na yaakaar ne jël la waaye joxewut jël mu ne ñu bëriwaat moo tax coow am na ci waaye fi ñu mujj a gis daal ak li ñu mujj a gis moom mooy Gora Sock moo ko daan jël bu leer nañ kon nag ki nga xam ne mooy tey Tyson 2 am na lu ko yoon may parce que ku ñu àtte te neexu la seen ngi fi waaye loo ci mën a dégg daal Talla Ndiaye jàppal tey la samedi 27 ci la ñu gis fii muy ay résultat yu ñu jot Pikine parcelle yoo bokku na ko 2-0 ñuy xaar suba nag ba xam fu ñuy mujje diggante Modou Lo ak Eumeu kon gars yi ngeen ñuy topp ñu dem Léopold Senghor Talla Ndiaye wan leen Modou loo ak am a Sène ba xam lu fay xew taala mais Talla nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que rek Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm wax yi na gën a rafet jëf yi na gën a rafet bu ko defee réew mi jëm kanam réew mi rafet la soxla.